ñu xibaara naan ñu faatu ka François Mancabou tax na ñi nga xam ne ñooy société civile bi ak organisation yi xeex ak ak yelleefu doomu aadama ak ñi nga xam ne ñooy opposition bi dañoo sëkkatal Macky Sall dañu koo sës jamono ji ci miir bi te nag lii mën naa yàqal benn bokk yaakaar ci yi nga xam ne moom la ñu jëma yéen a kaay gi de la Tribune ñu xëy fekk fa waa LD2 boo ñoom nag dañuy sàkku maanaam mbir mi leer nañe ñu ubbi ci enquête boo xam ne dafay tëddee nga xam ne ñooy régime bi ñoom Macky Sall ñoom la ñu a joxari baraamu tuuma ñoom la ñu mën a tuumal faatu François Mankobo yéenekaay gi di L'As Guy Marius Sagna ak ñi nga xam ne ñoom la àndala ñoom nag faatug François Mankobo Macky Sall lañ ci tuumal yéenekaay gi di Vox Populi Barthélémy Dias nee na force spéciale yi xam ne moom la ñuy wax loolu lépp maanaam ay tappale la Ousmane Sonko la ñu visé waaye nag faatug François Mankobo ak nag fukk ak ñeent ñi xam ne ñoom la ñu fa rayeen loolu lépp bis dina ñëw mu daal leer naññi moo moo xam commissaire Sonko nee na faatu François Mankuba moo nekk nag fukk ak juróom-ñeenteelu nit boo xam ne régime Macky Sall bi assassiné na leen maanaam depuis mars 2021 kii nga xamante ni nag mooy François Mankuba moom dañu ko torturé dañu ko toroxal Ousmane Sonko nee na dañu ko doon dóor ngir mu taqal ko moom Ousmane Sonko ci lu jëm ci wàllum terrorisme yéen kaay gi di enquête bàyyi mbir moomee wax ca élection législative yi nga xam ne moom la ñu nekk bi nee na ñi nga xam ne ñuy waa la maanaam li ñuy askanu Sénégal na leen leer ne su ngeen voteelee Macky Sall ci élection législative yi su gañee nag dafay laaj beneen mandat te bu laajee beneen mandat loolee mën naa dugal Sénégal ci kawo mën naa dugal Sénégal ci musiba mabba kumba moo tax journal bi nee na waa Yewwi ak waa Wallu troisième mandat bi la ñuy campagne yéen kay gi du l'Observateur nee na Ousmane Sonko démb yëngal na banlieue bu Ndakaaro ma nga woon ca Guédiawaye doon def caravane ànd ak Ahmed Aïdara Barthélémy Dias ak Aliou Ndoye ñoom ñoo ngi defante ci département bu Dakar yéen kay gi de Les Échos nee na coalition Askan Wi ñoom nag soxla nañu toll ci cinquante millions ngir nag man see def seenub campagne yéen a kaay gi na mi nga xam ne mooy tête de liste coalition Yaakaar ma nga woon ca diwaanu Bakel nee na razia la bëgg Benno Bokk Yaakaar daal di li ko wër lépp Aminata Touré nee na li Macky Sall def ci réew mi loolee rek war naa taxa ñëpp jóg voteel Benno Bokk Yaakaar yéen a kaay gi de la Tribune Pape Djibril ñi nga xam ne ñoom la àndal ñoom nee nañu Macky Sall financé wu leen tey Macky Sall financé wu leen ëllëg ñoom nañu tamit du ñu pion Macky Sall yéene kaay gi du l'observateur naan bateau engrais nga xam ne moom ngeen doon dégg ñuy wax ne dañu koo détourné ci port te mu toll ci trois milliards procureur nag daal nay bind nga xam ne mooy juge deuxième cabinet bi ngir nag mu daal di inculpé Aziz Ndiaye homme d'affaires ak mbokkam mii di Massata Ndiaye ak Aliou Diouf Lambaye ak ku ñuy wax Ndiaga Tall ndax nag procureur bi dafa jàpp ne bateau engrais bii wax ne dañu koo ni daal tudd nañ seen loxo ma nga ca biira nan ñu am na benn responsable APR bu nekk Jurbel boo xam ne moom nee na ñu dafa ëmbal benn xale bu jigéen ba pare daal di koy bañ xale bu jigéen ba yóbbu na ko fa mbaxana doonee benn yéen kaay gi di Stades nee na Kalidou Koulibaly ma nga sa Chelsea fekk na fa Edouard Mendy journal bi nee na Premier League ren jii dina tocc ci duyo Kalidou Koulibaly ak Edouard Mendy yéen kaay gi sunu lamboo nee na combat bi war dox diggante Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux Gris Bordeaux daan nay déserté écurie Fass maanaam jóge na fa amul fa entraînement yi ba pare